kooku kii na ça va ngeen si jàmm mais sa yaay bu dee daa voyagé est ce que duñu mën a gisante léegi léegi. kooku hmm, waay oui ça va maa ngi si jàmm bu baax hmm, waxoon naa la li nga jox sama yaay soo ma ko joxee di nga ko bàyyi. waaw eyi yow xam nga ne ay dëkkandoo nañ ba ba su ma génnee doo am risque dama siy ragal nga dem uh, ci prison de wala yow loolu am problème yow en tout cas yow man ak yow xamante nañ ba pare loolu doonul problème yow xoolal ñu ko harmoniser rek ba mu rafet yi kër sa yow da ngaa bëri doole nag wala mën na laa laaj yow ak sama gars yéen ngi ngi ba léegi wala waxoon naa lu mineur amatut ñun xale yi liñ xam ni maire xamatuñ ko non yow loolu amul problème yow loolu après mën nañ kaa réglé yow pour les gens excepté li mu demandé ba pare rek door jàll si leneen yow tontu woo ma si la wax de coach yaa ngi gis sama yaay bi léegi wala wala sax yow da ngaa fàtte wala da ngay fàtte fàttul ana ay fan ma waxoon soo mu tontuwul nag si li ma la wax du ma ñëw na fi ba dof yow sax non yow man ak sa yaay yow sport rek lañ sekk de sekkuñu hmm, leneen de d'ailleurs ba mu voyagé ba tey déggante wuñu contacté wu ma contacté wu ma ko xoolal yooyu sax waxatuma ko waa kër su lan nag SB dama am benn problème de SB dama soxla sept cent mille est que di ma ko mën a après ma delloo la xëy yow xanaa da nga feebar sept cent mille xale bu toll yow yow sombu toll de a ah boy yow am nga fit de sept cent mille yow lan nga koy dee lan a def yow dee sax xamali sept cent mille sax wala sept mille nga bëgg a wax bo sept cent mille yow est-ce xam nga lii loolu yow sept cent mille yi ma tudd daf laa tiital nii da nga xam chaque jour ma daan laal yow génn si yi nga nekk leen léeg laa bëgg a xam nay leer danga may jox sept san mille wala joxoom yow dafa mel ni yow caaxaanoo de damay wax mi dafa mel day dëggal de sept cent mil nga wax de sept cent mille léegi yow sept cent mille lan nga si bëgg a def yow même yow ñi nga xamante ni seen papa sax ñu ngi sant yow tontoo ñu sept cent mille yow loolu ban soxla nga war a xam ne daa war a am valeur sept man lenn rek laa la bëgg a laaj danga may jox bis boo ma joxul nag jàppal ne tey doo laal tey doo mos kon yow àddina sax bis boo ma waree jox sept cent mille nga woo